li xaadatil ujuru wal masaaliw bi tey wal jës ba inni sëriñ saaliw li xaadatil ujuru wal saaliw bi tey wal jës ba ini sëriñ saaliw li xaadatil ujuru wal masaaliw wal jës saaliw Cheikh Bamba nee na saali woy sama doom ku sopp Serigne Saliou Mbacké sama jàmbaar ja dem na. jërëjëf Serigne Ibrahima Gueye ci kàddu yi rafet yooyu nga jëwele ci ki nga xamante ni mooy Serigne Saliou di jàmbaar ja ñu ngi la ciy sant bu wér bu ko defee nag mbokk yi ko dégg kàddu yooyu xam ne mbir am na ki nga ñi nga xam ne ñooy daayiratu safinatu amaan bu Touba Bagdad ñoo woote bis bu mag. di bis boo xam ne ñu ngi ko jagleel Serigne Saliou bu ko defee nag bis boobu ci li ñu bëgg a wax dañuy jox ki nga xamante ni mooy jëwrin Modou faal mu wax ñu bis ba buñ ca yàlla yóbbu nan la war demee incha allah. auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa inni u'iizuha bika wa zurriyataha mina seytaani rajim rabbi a'uuzu bika min hamasaati sayaatini wa a'uuzu bika rabbi an yahduruni jërëjëfe sëñ Touba jërëjëfe sëñ Touba jërëjëfe sëñ Massamba Diop kon bu ko defee ñu. wëyal li nga xamante bi nii moo ñu fi dajale muy bis bii nga xam ne moom la ñuy waajal fas yéene ci def sant di Serigne Saliou mbàkke ndax defoon nañ ko benn yoon ñaari yoon ba bii doon ñetteel bi ñu fas yéene booloowaat nag ñun waa Daayira Safina Amaan ak bépp mboolem daayira boo xam ne moo féete fii ci gox bi ñu defaat delloo njukkal Serigne saaliw ci toolub sëriñ Touba bi waaru yaatu wi mu ci bay. ko defee di ci woo ñi nga xamante bi ñooy suñu mbokk tijaan yi xaadir yi laayeen yi ñoom ñëpp ñu leen ci woo ndax bis bi nekkatul bis boo xam ne bisub safinatu amaan la damaa jëlale murid yi waaye ñëpp leen ci ñëpp mooy suñu wayjur yi suñu mag yi suñu rakk yi ñëpp ñu leen ci woo yaakaar naa fi ñu war a dem yëpp dem nañ fa yi des mooy ñaan suñu borom àgg ci bis ba ak jàmm yaakaar naa bu ñu ci àggee ak jàmm euh, bu ñu xëyee li nga xamante bi nii moom la ñu nar euh, jàng li nga xam ne mooy alxuraanul karim def ko àddiyee Serigne Saliou ak képp koo xamante bi nii bokkoon nga ci liggéey bi te bàyyi koo fi wala moo xamoon sax bokkoo ci muy bépp mboolem jullis bu ñu noppee ci loolu ñu def berne yeeg yooyu xam naa après jee Serigne Abdoulaye dina ko àggale waaye woote bi njëkk daal mooy murit euh, Tidiane Xaadir Laayeen ñëpp ñu leen ci woo te xam ne bis bi dañ koy defal Serigne Saliou Mbacke waaye bisub sant yàlla la. jaarale ko ci jàmbaar ji nga xam ne mooy Serigne Touba ci leeram gi nga xam ne mooy Serigne Saliou Mbacke ndax ni mu def moo tax. moo waral saa su nekk ñu koy wooteel bis di ko ci sant di ci woo mboolem umma islaam bi yëpp yëpp yëpp ñu leen ci woo di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf jëwrin Modou Fall ñu ngi lay sant di la gërëm yal na yàlla barkeel te yóbbu nu ci bis ba bu ko defee nag ñu jox kàddu bi ki nga xam ne nii mooy Serigne Abdou Lahat Niang ñu gën ko xam ci Baylaat Niang fa tabaarakallaahu mi nga xam ni moo yor lii di wàllu porte-parole bi mu wax ñu bis ba it nan la war a tëddee buñ ca yàlla yóbboo Euh, salaamaaleykum wa rahmatullah lil xaadatil ujoori wal masaalihu bi tey wa jës bi wa inni Serigne Saliou jërëjëfe Serigne Saliou jërëjëfe Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou euh, mbokki àdduna ñu ngi leen di nuyu mbokki internet bi ñu ngi leen di nuyu di leen woo ci bis bu mag bi nga xamante ni bii nii moom la ñuy fas yéenee def di ci santati sunu waaja sunu yaakaar ja Seydina Serigne Saliou Euh, donte duñ ko wutal bis ndax saa sune ci la ñuy dox di sant suñu waaja waaye appal nañ ko app boo xam ne ci la ñuy fësal sunug sant sunug mbégte sunug yaakaar ci sunu jàmbaar ja Seydina Serigne Saliou ñu jàpp ko le 11 janvier fii ci Géejawaay marché bu bees Bagdad en face bassin de ratation bu Bagdad di ci woo jullit yëpp comme ni ko jëwrin waxee muy mel ne bis bi dina tàmbali le 10 janvier ñu jàpp ci benn guddi goo xam ne si la ñuy sant Baye Fallou kullu Baye Fall muy Baabul Mouridine maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul su ñu xëyee le 11 janvier dinañ wàccee kaamil ku ne xam na ni Serigne Saliou ni mu meloon ci arxuraan ak xasaayit bu ñu paree ci arxuraan jee xasaayit yi ñu waajal bernde yi di ci woo suñu mbokk faaleen yi suñu mbokk méngeen yi ak suñu mbokk jaañeen ni bu ñu berndee ba pare daal di waajal ngoon gi. ngoon gi liggéey bi daal di wéy ñu woo jànkatu xasida yi nga xamante ni bii ñoom lañ bokkal gox bi bokk ak ñoom géejawaay waaye bokk ak ñoom Serigne Saliou muy kuréel yi nga xamante ni bii nii ñoo bokk ci gox yi nga xamante ni moo fasatikoo bu ko defee ñu ci woo muritu Serigne Touba yëpp buñ paree ci kuréelu xasaayit bi woo nañ jàngkat yu mag yi nga xamante ni bii xam nañ leen fii ci géejawaay ku ci mel ne Serigne Alla Seck di jànkat bu mag boo xam ne miin nañ ko fii ci géejawaay di woo Serigne Cheikh Sarr Akassa mi nga xamante ne bii moom day bàyyeekoo ba Thiès ngir bis bi kese bu Cheikh Sarr pare ñu daal di woo Serigne Gana Messere di ambassadeur Serigne Touba bu Serigne Gana pare Serigne Moustapha ñi ngi bu Thiès mooy fanaane guddi gi kon ñu ci woo murit yëpp di ci woo Tidiane yi xaadari laay ne comme ni ko jëriñ waxee jullit yëpp ñu ngi leen ci woo. muy bis boo xamante ne bii nii ki ñuy sant daa nekkoon kenn koo xamante ne bii nii représentant de Dieu sur la woon moom Serigne Saliou ndax ku dul yàlla sunu borom ëpp ma yërmande ci jaam ñi bu ko waxee bàyyiwul murit bàyyiwul xaadar bàyyiwul tiijaan bàyyiwul laayeen kon képp koo xamante ne gis nga sa bopp ci woote Serigne Saliou boobu ñu lay woo ci bisu Safinatul Aman boobu muy le 10 janvier le 11 janvier muy ñaari bis yooyu yëpp ñu ngi leen ci bàyyiloo xel jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëf Serigne Abdoul Ahad ñang kontaan nañu ci kàddu yi rafet na ku la dégg xam ni bis ba jotal na yal nañu ca yàlla yóbbu ta motali yëpp ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee nag mbokk yi ba tey ñoo nga ca ku dégg kàddu yi rafet yooyu xamante sellati na waaye nag kenn ku nekk xam ne ni Serigne Salihu tàggat na njaboot yi ci ñaar jàngub Alqur'an ak li nga xam ne ni mooy ay qasida kon nag safina euh, safinatul aman bu Touba Baghdad sañu ñu def lu ni mel ba pare nag te waruñoo jawal li nga xam ne ni moom mooy qasida yi fa tabarakallahu di ko jaaral ci njàngum Serigne Touba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 amal lu am solo lii ngir bis bi nga xam ne ñu ngi koy defal Serigne Saliou di cant goo xam ne dañuy delluwaat ñu ko Serigne Saliou muy ñetteel bi yoon bi ñu koy def mu fexe ba lu mel nii am kon cant gi dañuy jël jëm ci moom waaye di santaat jëwriñ yi ak porte-parole bi di wax rek comme ni ñu ko waxee mooy cant Serigne Saliou bu ñu koy def war nañoo xam ne njàngum xasida da ci lu ci war a bari la te kuréel gi. xam nañ ne luñ ci taamu la te suñu borom dafa dogal ñu bokk ak suñuy mbokk taalibe gox bii ñu nekk di Baxdaat ñuy yëngu ci yeneen daayira yoo xamante ne nii dañoo fasanti ci barab yi waaye ñëpp nekk benn ndax suñu borom boo nañ ñu nekk benn kuréel jokkoo boo xam ne mën naa jiwul falaa tudd Serigne saalim mooy ñu ko tuddee woon. ba tax na bañ amalee bis bi jëwriñ yi nekk nañ ci dugal tur yi nga xam ne mooy daayira yi fi nekk nga xam ne ñoo war a bis boobu ñuy fàttali ñëpp ne Hizbut Tarqiyyah kuréel gu mag gi. wa ba ci wala gondaaw gi yëpp ñu ngi leen ci woo ñu ñëw ci bis bii nga xam ne moom lañ defal Serigne Saliou di woo waa kuréel mu xaddimatul xidma nekk fii ci ginnaaw di woo saxaadatul tulaab waaye ñoo ngi woo Nuuru Daarayni bi nga xam ne moo nekk fii ci ginnaaw ndox mi di woo Nuuru Daarayni bi nga xam tamit moo nekk ci ginnaawam ci jàkkay ibaadu yi waaye ñoo ngi woo Nuuru Daarayni bi nga xamante ne nii moo nekk ci ginnaaw marché bi. di woo safinatul amaan bi nga xamante ne moo nekk étage Madiali waaye ñooy woo tamit miftahu sahada di suñuy bokki taalib bi nekk fii di woo kuréel cheikhul xadim bi nga xamante ne moo nekk fii ci jumaa ji jumaa ji nga xam ne cheikh abdul karim mu cheikh abdul lahat moom moo fa taxawal lu mel noonu di fa liggéeyal maam ja sëriñ Tuubaa waaye ñoo ngi loo waa kuréelu Serigne Massamba bi nga xamante ne suñuy mbokki taalibe ñoo ko taxawal fii ngir dundal njàngum xasida ak dekkal njàngum mag ñi ñoo ngi woo kuréel kuréelu nooru daaree bu Pikine Géejawaay bi nga xam ne eh, ñu bëri min nañ seenum njàng ci xasida yu mag yooyu di jaalibatul maraaxib ak yu mel noonu kon ñoo ngi woo koo xamante ni jàngkatu xasida nga te nekk ci gox bi mbaa ngay dégg suñu woote bi ñoo ngi lay woo ci liggéeyal Serigne Saliou bi nga xamante ne ñun kat amuñ lu dul Serigne Saliou te ko xam ne ndaw yaa ngi nii demuñu daara te bu ñu génnee ñu nekkat kat yow da demoon daara loolu Serigne Saliou moo ko jëf kon nañ bàyyiwaat xel ci suñu woote bi te xam ne kat bis bi amuñ lu ko ëpp kaw. nañ ci dox ak Pastef bu baax di fàttali mbooloo mi yëpp ne bis boobu kat nañ ci def exposé boo xam te dañ ciy wax ci dunduk Serigne Saliou ak ay jaar-jaaram ak i jàngaleem jërë ngeen jëf. jërëjëf Baye Amary Ndiaye ñu ngi lay sant di la gërëm. ci kàddu yu rafet yooyu nga xam ne nii jawal nga ko jëmale ko ci kuréel yi ak yu ni mel yal nañ ca yàlla yóbbu incha allahu taala waaye nag kenn ku nekk xam na ni bokkon na ci kàddu Serigne Saliou ci ku ko miin daan na wax ni jox leen ma ndaw ñi ma def ca ñoom la Serigne Touba defoon ca mag ña kon fa tabaarakallahu kenn mënta tuddu ndaw ñi te tuddoo ca Serigne Saliou waaye kenn te mënta tudd Serigne Saliou te tuddoo ndaw ña comme moo ko waxoon nag tey jii waa daayira safinatul amaan bu Touba Bagdad daal di ne kon nañ jël ndaw ña boole leen ca nag ndax moo doon bëgg-bëgg Serigne Saliou ci biir ndaw ñooñu nag jël nañ ci ki nga xam ne mooy Birane Ndiaye mu wax ñu bu ëllëgee ndaw ña nan la ñu war a doxalee ca bis ba. awuusu billaahi mina sheytaani rajiim sadrid lisaani nawil jamaani safil amaani wasid baraahi zaxzaxta dayra li xuufta mayra fal tak fi jawra li mën yuraahi jërëjëfe sëriñ Tuubaa jërëjëfe sëriñ Tuubaa jërëjëfe sëriñ Saaliw kon bu ko defee dañuy xam naa dañuy doole kàddu yi rek te xam ne maanaam suñuy jëwriñ nii wax nañ li nga xam ne maanaam bis bi moom la jaado kon ñun ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi kon dañuy dénk suñu mbokk taalibe yi di di di ndaw ñi di bis boobu bu ñu demee ba ba ba egsi fa rek maanaam lépp li nga xam ne maanaam moo warloog bis bi rek kon suñu loxo la la la daal di la daal di eh, yenu maana daal kon ñu bàyyi ci xel baax a baax te xam ne bis boobu daal lépp lu fa nekk luy luy liggéey luñ luñ lu ñu war a def moo xam mboolem li li bis bi di laaj la kon suñu loxo la nekk kon ñu bàyyi ko xel bu baax a baax te xam ne maanaam amuñu lu dul Serigne Saliou ndax comme ni ko gars yi waxee rek Serigne Saliou moom moom mooy ndaw ñi ndax bi mu ñëwee daf ne jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la Serigne Touba defoon ca mag ñi donte yeyoo ma ko sax ma barkeeloo ko kon loolu maanaam sunu sunu eh, sas la daal ci ñun. kon ñu ngi santaat bu baax a baax te xam ne bés boobu noonu amuñu lu dul bés boobu noonu di sant Serigne Saliou tey dañ koy gëna a doolee sant rek te xam ne maanaam defal nañu loo xam ne maanaam suñu ndey ak suñu baay mënuñu ko ci ñun kon dañuy yàgg sant rek te xam ne maanaam bis boobu daal lépp lu nu fa def rek moom moo nu war lépp lu ñu fa def rek moom moo war kon dañuy dénkaat suñu mbokk tout tànk rek te xam ne maanaam ñu waaj ko bu baax a baax ndax dañoo jël lépp rek daal di koy teg ci tu tànk yi kon nañ ko waajaat bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf Serigne Birane Ndiaye ñu ngi lay sant di la gërëm kàddu yi rafetati na yal na yàlla barkeel loolu rek la Serigne Saliou bëggoon yal na nu ca yàlla yóbboog jàmm waaye nag mbokk yi bu leen fàtte fu yàlla wax innal muslimina rek tudd na ca muslimaat yi kon góor mënta dem sans jigéen jigéen mënta dem sans góor jërë ngeen jëfati kon ki nga xamante ni nii moom moo jiite jigéen ñi nga am buñ ko joxe mu yóbbaale leen géew ñoom ñëpp moom la ñuy waaj a jox kàddu gi muy soxna na soxna na bu mbay mu waxtaan ci li nga xamante ni nii moo jëm ca bis ba buñ ca yàlla yóbboo ci wàllu doxalin wa ci wàllu bernde ya ci wàllu colin ya ci wàllu yëpp soxna nabu bismillah mosbilahi mina seytaan rajim bisimilahi rahmaan rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu wax waa daayira safinatul amaan di nuyu sama mbokku jigéen yëpp mbokk soxna yëpp maa leen di nuyu di ñëw ci yëgleb euh, cant Serigne Saliou gi ñuy def rek fii ci Touba Baxdaat di woo suñu mbokk soxna yëpp yëpp yëpp di leen wax ni doon nañ ko def daan ko def benn bës mais bii dañ ko def ñaari bës muy la 10 janvier ak le 11 janvier ñu bëgg incha allah bépp mbokk soxna bu fay ñëw rek na yiw na sol gi yiw da nga muur say cër ndax ki ñuy sant du ko ndaw te dañuy sant Serigne Saliou saa bu xëyee dañ koy sant waaye dañ ko bëgg a bëgg suñu mbokk yëpp jàppale ñu ci ñu leen di ñaan nag soxna yëpp ñu ñëw ànd liggéey bi liggéey ko ndax berne yi suñu xëyee dinañ commencé berne yi le 10 ba le 11 ba presque le douze ndax ku ni sëñ Saliou ni bernde te bu ñuy sant sëñ Saliou lépp dafa war a mat mais maa ngi leen di ñaan surtout ci soxna yi ngeen yiwal col gi te ñëw ñu ànd liggéey bi yëpp maa ngi tuub nag di jégalu bu baax di leen soññ bu baax jërë ngeen jëf. jërëjëf soxna bu mbay yal na yàlla fay la kàddu yi rafet na kon soxna yi mi ngi noonu ngeen déggandoo ko buñ ca yàlla yóbbee kañ lay doon ñu ni samedi 11 janvier incha allahu taala. waaye wax nañ lu ko jiitu nag le 10 ba sax daanu ko tàmbali ba le 12 incha allahu taala waaye 11 moom mooy bis ba bu nu xëyee daanu jàng alquranul karim lépp nag ñu def ko ci ndigalu Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké fa tabarakallahu bu nu xëyee jàng alquranul karim bu nu jàngee alquran daanu yendoo bernde bu nu bernde ba ngoon incha allahu taala nu defaru waat waaj ñëwaat ci tante bi bu nu ñëwee nag daanu jox kuréel yi kenn ku nekk di nga barkeelu jàngale jaarale ko ci njàngalem Serigne Touba bu nu ca noppee nag incha allahu daanu jox ki nga xamante ne nii mooy Cheikh Sarr bu akasa fa tabaarakallahu bu ca jugee nag ñu jox sunu nijaay Serigne Alla Seck mu bégal ñu ci yonente bi waaye nag bu noppee ñu jox Serigne Gana Messere moom moo ñuy soññu ci diina ji soññu ci yoon wi soññu ci ci ëttum Serigne Touba bu nu noppee nag incha allahu ñu jox nag jàngkat bu mag ba tàggkatu yonent bu mag ba jaarale ko ci njànginum Serigne Touba mooy kan Serigne Moustapha Ñing mbokk yi bis baa ngoog ñu daal di ñaan dem beneen yoon ñi ngi ciy woo ñëpp góor jigéen mag ndaw képp koy wax ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah mbokk julit i bis bangoog ñi ngi ci woo ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu sika ibadatika bila buka iwalada law sana ana سينا